àll leen ma seen i nopp ma xibaar leen li si yéenekaay yi tey yéenekaay yëpp a daal di fësal benn ponk di discours bu njëkk bi nga xam ni Bassirou Diomaye Diakhar Faye en tant que président bu njiitu réew amal na ko ki si njëkk di quotidien national bi di la Soleil président Bassirou Diomaye xamle fa ni euh, dina rek gouverner réew mi ci humilité ak transparence mu xamle ni lépp weesu na liggéey moo des ba tax mu woo naataangoom yi ci réew mi ba ci nag ñi nga xam ni ñoo nekkee ca réew ba tey yéenekaay baa ngi ñuy xamal ni Amadou Ba reconnaître na defetam ba noppi félicité candidat bu coalition Diomaye président ba tey président Macky Sall Adama Barrow El Ghazouani Embalo Doumbouya ak Macron ñoom ñëpp nag daal dinañuy félicité Bassirou Diomaye Faye en tout cas génnam gu njëkk moom cinquième président bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci en relief dalal na xelu askan wi léefoo ñëwal ñu ci chantier yu mag yi nga xam ni Diomaye Faye moom la bëgg a songu daar daar te mooy réconciliation refondation des institutions ak allègement Walf Quotidien di ko ca feelu ndax yéenekaay bi nee na jubóole askan wi xeex ger ak wàññi njëgal dundu gu seer gi mooy chantier yu njëkk yi nga xam ni moom moo gën a mag yi joomaay fay bëgg a mu xam le ci enquête yéenekaay ni gouvernement bi muy taxawal sénégalais yi ci réew mi ak ya bitim réew ñoo ko nar a seq ba tax ba tey rek ci yéenekaay bi sargal na ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko mi nga xam ni moo ko joxoñ tànn ko ni candidat bu Pastef jàppale ko ba tey nag mu daal di nekk président de la république barkeelu ndax yéenekaay bi nee na discours bu njëkk bu njiitu réew bu bees bi ci diggante urgence ak priorité la ko daal di jëmale Bakary Domingo Mané di analyste politique euh, ne discours bu njëkk kenn mënu cee rek àtte qualité président waaye nag génnam gu njëkk gi euh, gis nañu ni euh, xam na li koy xaar moom Bassirou Diomaye Faye Mamadou Sy Albert di ko ca feelu moom it xamle na ni tegu na ci logique nit ku am détermination te xam fi mu jëm waaye nag lu soxal style politique bi faaw nekk ñu daal di ko koy jàngalaat te loole réalité bi nga xam ni moom moo am ci politique dina ko ko tabaxal en tout cas si du quotidien nee na joomay engagé wu na ci benn gouvernement gouvernance politique économique et sociale bu Sénégal yoor yoor bi dolli ci ni message nation bu njëkkam moom président Bassirou Diomaye Faye réconciliation nationale la woote ngir askan wi yëpp daal di ci les échos ne dina ko jàppale ci xëyu ndaw ñi ndax nee na nag daa jàpp ni liggéeyu Sénégal képp rek moom moo mën a moom moo mën a yëkkati Sénégal ba mu àgg ci euh, réew yu mag yi fa ñu àgg mu dolli ci moom Abdoulaye Sylla ci la mandaane jubaale sénégalais yi ak liggéey loo leen mooy li nga xam ni moo gën a jàmp fi mu toll nii kon bu ñu sukkandikoo ci Dakar Presse secteur privé bi pare nañu nag ngir gunge ak jàppale ba Bassirou Diomaye Faye euh, ci faluk euh, ci liggéey bi mu nga xam ne moom la sumb en tout cas ak loo ci ak lu ci mënti xew daal ndaw ñi ñoom ñoo jël pouvoir bi ndax njiitu réew bu bees bi nga xam ni moom la ñu fal di Bassirou Diomaye Faye ndaw la l'éveil moo ma ko xamal ma xamal leen ko yéenikaay bi ne corruption di guerre ak réconciliation di jubale mooy priorité am moom njiitu réew bi nga xam ni fal nañu ko mu rafetlu nag vigilance bu Macky Sall jëm ci élection yi waa forum du ci point actu ñoo ngi sàkku si njiitu réew yi nga xam ni ñoom ñoo fi nekkoon ngir ñu ñëw nag daal di taxawu xale yi ba am ndam ñu daal bu bees bi ngir développement Sénégal en tout cas le point info nee na Macky Sall ak Amadou Ba félicité félicité nañu joomaay le peuple quotidien teg ca ni euh, discours am bu njëkk euh, dalal na xel yi ndax réew mi quotidien nee na daa taxaw taxawaayu njiitu réew ba noppi euh, ba tax turbine joomaay dalal na xelu France ba tax Macron daal di koy félicité ndax déclaration bi mu def moo tax ba naataangoom ba ca France daal di réagir l'observateur def ab l'enquête ci moom Bassirou Diomaye ba nga nga xam ni amoon na ko ba mu nekkee gone yéenekaay bi ne journalier la woon ci maraîcher yi nga xam ne ñoom ñoo njëkk am ca Malika ba tey eh, bi nga xamee ni magam bu góor gaañu na ci la àddunaam dal di métti ba tey yéenekaay bi ñëw na si eh, ñi nga xam ni eh, gisa mooy gisanteem bu njëkk ak jamaram bu njëkk waaye deuxième mariage bi nga xam ne itam amal na ko weer laataa ñu koy tëj ci kaso bi source ay itam ñëw na ci lu bari ci jaar-jaaram moom ba Bassirou Diomaye Faye waaye yéenekaay bi nee na nañu ko jàppale jàppale ko ci solinam euh, ci waxinam ak doxalinu njiitu réew fi la ñu nar keppee li ci yéenekaay yi ma delloo leen seeni nopp ba ëllëg ak jàmm ci Nasiru TV jërë ngeen jëf